Bye. li ma nekk ci jamono ji ak jamono ji même xale yi daje fenn ba ci moo jaay jàmm ci waaye bu ngeen ma fa fekkee ci njóobu may di may jox sama gudd ci njóobu may di may teraloo njóobu may doomu ndeyu si jiin laay bëggoo njóobu njóobu may ma bëgg ñoo taxaw nga déglu li may wax ci Ndiogu Mbaye mbokk ndey Youssou Ndim li ngeen defar ku ci nawle kontaan na ci lool doomu yaay waali balaa góor a ci Ndiogu Mbaye li ngeen defal Ismaïla Mbaye defal ko mu ngi naw ci Ndiogu Mbaye ñu fa fekke li may woy sa doomu day jógu mu fukke noona jëmm naa la suma xarit bi fa ma fekk ne ma si dee góoru góor ndaxte musique bu dee tool am nga ci am nga ci part boo war a bàyyi bayal doomu yaa maw doom sama mag ji yàlla nga fekke déwén ci barke Sëriñ Babacar Si Maalik faramaare Modou jërëjëf boobu ba léegi wax waaye ñu yëngu lu ne ñu koy yëngu lu kopp doole bi ñu nee guddi ndaw de tur yi nag muy rabaroo tey jii laa daan wax waaye tey jii laa ko war a wax sama yaram dafa daw ñu ne bu ñu ñëw de kuy ñëw la jóg délégation bu ñëw nekk waaye rawatina délégation bi ñëw waaye balaa ma sekk maa yaay si may sa biir may sa biir gamaa sama xarit boobu bu tabaski jotee ñu ne waaye balaa ma sekk ci xarit. bu koor it a jotee ñu ne bu waa ni balaa ba sekk fa tabaarakalaa bu suukaru koor tabaarakalaa fu mu daje ñu jox ñu suñu gëm mu baax loolu am jom tontu baayam tontu ndeyam tontu li bokkam tabaarakalaa maa sha waaye si sama xol seen bi nga wayee tabaarakalaa maa sha Allah nawle bu baax boobu waa ni balaa ba loo kenn loo kenn tànnaa suroo kenn tabarkalla macha allah xam nga ci loole dee la xëy guddee wàcc ku la jox cër nga delloo ko waaye lii nga defal nag sunu nawle bu baax boobu mariage si merci bii merci bu def naa si di jóg nag tabarkalla kenn yàlla bu dul safar loolu mbaay jox ko bu dolli jox ko bu dolli jërëjëf Ismaïla Ismaïla tey guddi nawle yi li ñu ci bëggoon am nañu ci tey rek xam nga ni Sénégal dañoo nawloon Seydou Diop ndaanaan lu mag ni yaa ñàkk ci ñaan yaay askor yaa mën lu baax bi nu taxawalee guddi bi da nga man maa koy way dafa yegguuma leen gërëm barke yonent bi laajoonu kase laajoonu kase nga àddu ko sa mag ju baax ca Matar si la xarit Diop moo ne mbenn yaay jàll Matar bëgg ñu tàccul ma ko bu baax baax kooku mooy as gor kooku mën lu baax kooku mën a fay pir bëggee bi ñu tëggee bis bi dari siiri day ñëw maa leen ko may gratuit te laajooñu kese yàlla yàlla guddal sa fan waaye nag ci yabal délégation Ismaïla Mbaye kooku mooy kan mariage may sa diige may sa diige maar aju naa rek a déndoo njëkk a dem ci làmbaay ñiinoo ñiin ñiin faramaariin Lat Diop di ngeen mbaay Diop Demba di mbaay Bourad Fall ay dégg dama ni tey jii l'histoire retiendra li xew Sorano tey gën na xew bu nu altine réew mi dina yëngu Wally Ballago Seck tasoo sunu yaakaar de bi mu nu bëggee fonk nu jox nu sunu cër xam ni ñooy ñan respecté buy tëgg baara mundi ni tey yéenay samay invité d'honneur bu nu ñëwee mu teral waaye Ndiogou Mbaye yaa ñàkk ki ñaar yaay as gor yaa mën sa xarit boo àndeeg sa nit mu baax lool doo ko def omelette da nga koy mayonnaise boobu moom ñëpp yow xajal nga ñëpp waay waaye nag ki mu yaral alaaji Youssou Dieng mu baax nii nga xam ne alaaji Mame Less Thioune moo daan def premier janvier waaye tey yaay def premier janvier li ngay def fii ci Sorano dig nga fi am yàgg na nga bëgg waañ fonk waañ waaye bëgg lu ñun bi nu taxawalee bis bi da noo woon rek ñëw sa kër ñu ñëw nga waxtaan ak ñun xamal nu naka la ñuy defee organisation programme kon yàlla yàlla guddal sa fan délégation bi ñëw daal ñor nañu lool mariage bi may si diine sant bunu mm. nag sant bunu ndax ku gis ku nit bii xam ne ñii mën ñu leen a fay dañuy jël un temps bu doy sant ñi fi toog ñëpp sant suñuy nit sant ñu nu jàppale alaaji su euh, suñu bàyyi salla bii bi yow kenn mënu laa fay waali bal naa ko daal kontaan nañu ci moom jërëjëf Modou Mbaye daraanga bi Youssou Dieng bu ñu nee teranga Wally Ballago Youssou Dieng moo koy joxe mu am na joomu may loolu mooy tubaab dem na Paris te tubaab bu demee Paris nga ni si si wala non non kon nañ jox nga xam ne moom mooy Youssou nga jox teranga bi nga xam ne moom la Wally jox Ismaïla Mbaye ak Modou Mbaye. jërëjëf El Hadj Sall Bigué Sorano ñu ngi nuyu ñëpp di jégalu xaar bi yàgg na waaye tubarkal la mbooloo ko fan rek am fa cër te guddi gii. ku ma déglu rek yàlla na nga gudd fan te bu seen xel delloo ci ni guddi gi tudd rek ñu war a déglu ndax Ismaïla Ismaïla Mbaye dafa ren naw la dafa foor Ismaïla Mbaye Modou yéene na leen naw la dafa foor gannaaw naw daa foor nag ngeen xam ko tax ngeen soloon seen dàll yii ñëw ba baara naan du dafa waar baara du fekk lépp jóg xamal ko ne ko guddi gii ñu a ngi ci naw la daa foofu te nag lu wóor ba wóor mooy ku xam waale xam ne ko fonk naw la ku xam waale xam ne ku bëgg naw la bi ngeen ko joxee li nga xamante ni mooy carte bi cërale ko ci bis bi da ko jël ci naw nangu ko ci naw la xam ne ay nawle ko seet si te li ko warloo ak yéen mooy mu jëflante ak yéen jëfu nawle ndax nag nawle daa foofu waaye loolu du ñu bett nag di ngeen bàyyi Maria Sy may sëddi may sëddi gën maa ajub naar dafa des lu ñàkk dem ba des lan bàyyi njin préparé borom benn xaytaat yaa sim kuli daaw waaye ñoo bokk nañ waaye xaytaat am gàtt am fa daaw doon xaytaat ci àll bi daa mbaay dem naa rek am fa muy si dem Daaru Mbaay ak Galo Daaru Mbaay ñu jël ñu jël Galo jox ko Nabi Diop dëgën baay Galo la ñu jël jox ko dëgën ñu am te Nabi Diop dëgën baay alaaji Seex Seck ñu baax mi jox ñu alaaji Papa Thior ñu jël Papa Thior jox ko ajaratu jëm waaye dafa ne maa ngi ci beneen moodu ngay wuri bala yaayam tudd ndey Sooda Bala yaayam tudd Baara Diouf la baayam tudd tubarkal la baytir ma jigéen bor ak aali jigéen bor dëkk ci réew mi di Ndakaaru ba mu jeex tàkk waali ñëw xam ni mu mel Ndakaaru lépp daa maamam sañ maamam Baara Diouf maamam Papa Diouf maamam Alaaj Diouf Njaay Kuraay maamam Salif maamam Ñoxor maamam tubarkal la Abbas maamam mu ne ma Youssou Dieng ay nawle woote kon nawle laa yebal ci ñoom àndal ak ñoom mbay nguuda amina ak baaba amina xale bu bëgg ndeyam nga xam ne tubaarkàlla mën na dégg maalam nag waaye maalam gën du ko dégg ci mim réew ndax nag ànd ak sa nawle yomb na waaye fexe ba du la yàq moo jafe te ñëw bu loolu la ànd ak waaye du ko yàqal du ko ruubi solaano seen doom moo woote waaye seen doomu yónnee Wally Ballago Seck ci nawleem yi enveloppe bi ma yor million ci ne nee na lu mu fekk la ci nawleem yi waaye da leen di jox rek ngeen jënd maraakis alaaji saala bii gi Wally nee na jëgu maraakis la rek ci guddi nawle xam nga ni bii enveloppe ci maraakis eh gars yi cette enveloppe elle est en état de grossesse très avancée et risque de césarienne nee na nañ koy jënd ay marakis xanaa marakis yoo talon yooyu lay doon yooyu PNS double talon moom lay doon léegi nag enveloppe bi yaasi nañ ala enveloppe bi ki nga xam ne moom mooy euh, waane nit yi waaye enveloppe bi ma seen jigéen ki ne di Diouf mu princesse Diop